wasalaatu wasalaamu ala fadlakati daftari l awalina wal axirin sayidina wa mawlana wa xabibina wa shafiina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mel na na li ñu waroon dégg yépp dégg nañu ko ah xanaa di wax ci ndigal ndax xol yi fees na xel yi daj na xol yi dal na ci jëmm joo xam ni ni ko suñu bàyyi alxaaji Mansour mbay waxee léegi ndax Prutin Fall rahmatullahi alayhi daf daan wax ni xam-xam ñett la mu ni bi ci jëkk mooy xam-xamu yër c'est la littérature mu aju ci téere yi neena na bi ko ñaareel mooy xam-xamu fekke nee bi ko ñetteel mooy xam-xamu na xam-xamu yër leerul yaatuwul nee na xam-xamu fekke leer na waaye yaatuwul nee na xam-xamu yëg moo yaatu te leer sunu bàyyi alxaaji Mansour Mbay na wax ak ñun ci xam-xamu fekkee te xam-xamu fekke ak xam-xamu yër ak xam-xamu yëg dafa daje ci jëmm ji nga xam ni tey moom la yàlla dogal mu sabab daje bi mu nekk fi nekku fi maanaam alxaadir alxaaib tënkoon boppam nag ci juróom yi nga xam ni ku yàlla tàllal loxo boo ci d'accordul du jàpp ci sa loxo juróom yi nga xam ni ku yàlla tàllal loxo gannaaw bu mu la ko gaaralee ba noppi boo ci d'accordul yàlla du téye ci sa loxo bi ci jëkk mooy mën ko te bu ko def bi ko ñaareel mooy xam ko te bu ko wax bi ko ñetteel mooy xool ko te bu ko gis bi ko ñeenteel mooy déglu ko te bu ko dégg bi ko juróomeel mooy am ko te bu ko sa loxo laal yii nag ku woddoowul xam-xamu maarifa contrat bi doo ko mën a respecter sa digganteeg sa borom lii la Cheikh Mouhamadul Mansour fekk maamam Cheikh Seydil Hadj Malick ak i baayam ñu diggaale kook yàlla mu ñëw teg ci tànkam ndax bi maamam di ñëw tiwaawan ñamu fa fekk ñett ñoo doon seen shiar seen slogan ñu di ko damu benn bi mooy ngor benn bi mooy fit benn bi mooy kaddu Cheikh Seydil Hadji Malick gis ni ngor bu ko diine woddul mu rafle fit bu ko nite woddul mu rafle kaddu bu ko diisoo ak waxtaan woddul mu rafle mu indi diine indi nite indi diisoo moo tax bi muy interroger kawnu bi ci Tiwaawan pour ñu installer ko ñett la laaj ne ndënd yi may dégg ci roq bi fana ñu ni ko foofooy kër jawrin may sa mbay sàll ñoo ñoo fi toggal ceddo yi yow seen baat ak seen kilifteef mu ne waaw coow li may dégg ci roq bi ñana ñu ni ko foofu mooy quartier commercial mu ni waaw mbooloo mi may romb fii di dem ak di dellu si ñana ñu ni ko ñooñu ñoo dëkkee kuli ngi jaan ak jaaloo ngi jaan ñooy boroom xel yi ku soxla conseiller foofu nga koy tànn mu ni kon wàccuwaay bi mën na dugg ci diggante kuli ak jaalo waaye gisoon na ni programme bi mu bëgg établir ci biir Kajoor bu ko xam-xam lalul musiba am ndax wa allama aadama al asmaa kullaha ndax yàlla indi benn programme de société présenté ko malaayika yi malaayika yi yëngu ndax créature bi mu bi mu tëral li ñu gis mooy biti bi li nga xam ni c'est touchable palpable ndekete mbir mi du foofu mu ngi ci li mu ndëxañ ci biiram ndax nit dafa am dafa war a xam li muy dunde ak li koy dundal maanaa boo amee tey sa benn téléphone mobile te nekkagul lu opérationnel électricité lay dunde nga chargé ko mais pour mu opérationnel il faut nga dugal ci benn puce nga wuti opérateur noonu la yàlla installé an nuur al muhammadi sallallahu alayhi wa sallam mu taxaw taxawaayu puus ci biir jëmm aadama alayhi salaam moo tax mu ni sujootal leen ko maanaam reconnaître leen ni am na beneen créature bu existé ci image boo xam ni feeñalagu ko waaye moo manifesté ci biir jëmm ji ba tax mu dund ndekete ci jëmmu créature boobu ci la créé jëmmu Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour ndax min bani aadam malaayika yi contesté atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa naxnu nusabbixu bi xamdik wa nuqaddisu lak ah yàlla ndax service bu toll nii ñu ñu ciy xëy ak yow di ci gont ak yow te loo ñu ci sant ñu def ko te loo ci bëgg ca loolu la ñuy ne te duñ ca jóg fii ak wàcce woo ñu ci ndax dangay indi beneen créature bëgg ko dugal ci sunu biir te ñu miinuñu ko miinuñu mu ni fu ngeen teg wax ji dama bëgg ngeen argumenté ko ñu ni ko koo xam ni bu bu bu bu lekkee ba biiram fees mu bajantu ne poulain wala bu demee ba daj darajaam ku taxaw ci kanamam mu fël la yàlla ne waaw yéen alquwa alquwa alxadabaniya ak alquwa alshahawaniya moom ngeen gis xam nga nit bu demee ba bëgg a ba bëgg beew boo ko bëggee dimbale danga ko naan delloo sil sa xel waaye bu demee it ba xàmmeetul tànkam ak tànku baayam ba bëgg ci jog gi danga ko naan delloo sil sa xel ndeke boobu yàllaa ngi nëbb al quwa al aqliya moo tax di yonent di doomu yonent di doomu xutbu zaman intéressé wul yàlla yàlla ku nitee ko intéressé moo tax waxul ak nit xel la waxal moo tax bu xel mi feebaree rek daanaka ibaadaat yépp wàcc la moo tax kuy nelaw bokkul ku majeuragul bokkul ku xel mi dem bokkul sëñ Mansour nag ñëw nàmp maarifa nàmp maarifa ba pare nag mën a am benn analyse bu mu def bu profond ci jamono ndax nit ku nekk sa dundunu jamono sa environnement moo koy déterminer ndax Seyd Cheikh Ahmed Tijani Chérif radiallahu anhu nee na siiru sayra zamanikum sëriñ bi ci mbubb yu rafet yi sëriñ bi ci immeuble sëriñ bi ci oto yu rafet yi sëriñ bi ci maye xaalis bi gars yi defe ni bëgg àdduna la te maam Cheikh Al Hadj Malick yarul njaboot ci bëgg àdduna waaye daf ko tàggat ci bëgg lu baax booy bëgg lu baax nag ci sa contexte jamono ngay seet fi jamono toll nga tabaxee noonu sa jamono lenn lu ci ne bi nga koy def jamono xew loolu la jamono laaj am na jamono baraaga fi am am na jamono néegu ñax a fi am tey nag ah ciment am na fer am na ah marbre am na électricité am na chauffe-eau am na ah te nag mosoo fekk benn makaan bu sëriñ bi tabax nga yëg ca saal bu mu destiné président de la république ak bu mu destiné baykat bi ñoom ñëpp ci benn salle lañuy ñuy bi ci desit mosoo koo fekk ci balcon mu sëpp mosoo fekk koo fekkit ci ëtt mu lal basan kooku lu ko taxoon di tabax moo tax al jihaadul akbar fi hada zaman du jéem a sampi daaraa ki jàkk am na ba noppi la si Cheikh Alhaaji Malick waroon def def na ko ba noppi waaye fekk benn Habib Sy mu am dëkkuwaay bu jag ak njabootam yàlla dimbale ko ci àdduna mu dem ba mbuur tabax fa kër gu yànji te nekkewu fa lu dul nelaw ak naan lu sedd nooy def ba jaamuloo ko yàlla te boo génnee yàlla bàyyi la ak say bët nga romb ku ñuy wommat te defaloo yàlla lu tax mu ubbi sa bët romb gis kuy raam yàlla bàyyi la ak sa tànk te defaloo yàlla lu tax mu bàyyi la ak sa tànk nga romb gis kuy yalwaan te ñiy tàllal loxo bokkuloo ci te defaloo yàlla lu tax mu may la nga laaj sa nawle gor boo xam ñu ni la fan yii yëpp dafa jagati nga yëg ni yow yaa ngi ko wér te defaloo yàlla lu tax mu defal la wér nga taseeg sa nawle luñ la wax nga dégg ko moom yàlla fatt nopp yi ba luñ ko wax du ko dégg te defaloo yàlla lu tax mu ubbi sa nopp sëriñ bi ngay cëpp cëpp yëg ni kàttan goo am la ndeke sa diggante tànk ak suuf loxo yàllaa fi ronu te bu ko rocc woon nga barastiku sëriñ bi ci xaal bi la doon enseigné ndax tarbiyatul himma am na li nga xam ni nit ki faw mu tuur ñaqam pour mu nekk caution ci lu ko war a jëriñ tarbiyatul xaal am na nde mbonaat bu matee sëkk hu lay tudd waaye buy nàmpal doom ja dafay lekk ba biiram fees mu ñëw ne ko jàkk par divine ba biir ba fees dell mu wàññeeku kooku tarbiyatul xaal la mu des nag tarbiyatul istilaaxiyatu defar la nag ba nga nuru ki la defar sëriñ bi daan na fekk nit di ko defal teraanga bés rek mu bett la sa kër seet li nga koy defal ak ni nga dëkke est-ce que ñoo méngoo walla déet te bu boobaa la war a am ci sa kër bu la ko yeddee ba noppi la fa war a nekk moo ko fay def te loolu la Cheikh Seydil Hadji Malick doon tuddee c'est la civilisation dugg ci nit ñi def ci ñoom li nga war a def génn te duñ la dese wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala ma kaana al bi xalqati wa arwaaxu kullal